mbokk yi ci foofule ci la ñuy tàbbisee yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi tey jii nag benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la dalle nag jàmm njiitu réew mi Macky Sall jot na tere ay ñoñam tere na Yaxam Mbaye ci ndajeb gamu naroon a amal juróom-ñaari fan ci weeru avril gi ñu ne te ci googule bëccëg ci la mouvement Y en a marre jàpp seen ndaje nar ko amal ca place de l'Obélisque Walf Quotidien ñu fàttali ne Yaxam Mbaye yéeneem bokkoon na ca amal dox doore ko ca RTS wutali place de l'Obélisque maanaam naroon a jàkkaarloo ko waa mouvement Y en a marre yéene kab ñu xamal ne googule jàkkaarloo du mujjee am njiitu réew mi Macky Sall mujjee na ko gàntal daal di sàkku ci Yaxam Mbaye mu tegaat ci suuf googule programme teg ci suuf ndajeem googule te may waa mouvement Y'en a marre ñu amal seen ndaje gannaaw buñ ko jàppee juróom-ñaari fan ci weeru avril Walf Quotidien di am taxaw seetlu ci doxalinu Yakham Mbaye mi secrétaire d'état à la communication yéen a cabinet ay njuumteem bari nañu te doxalinam awul ci yoon Walf Quotidien bu ñu fàttali ko yàggut ñaar fukki fan ci weeru janvier gi ñu weesu moom Yakham Mbaye jot naa dànkaafu Mamadou Sy Tounkara bu 2STV Yakham Mbaye newoon ci tànk gàllankoor 2STV yàggul dara njiital groupe Walfadjri Sidi Lamine Niass amal déclaration fukki fan ak ñetti ci weeru gi ñu weesu addu ci tolluwaay réew mi yéen cabinet ci saasi la yaa xam mbay dem ak ji RTS tàmbale dal ci Sidi Lamine Niass xamal askan wi ne Sidi Lamine Niass dafa yoral état xaalis gu mu feyul te loolee mujjeewul fenn njiitu réew mi Macky Sall moo ca mujjee addu jox dëgg Sidi Lamine Niass yàggul dara yaa xam mbay defatina njuumte gannaaw bu mu bàyyee ba yaanaamaar jàpp seen bés ci saasi la bind demande ngir bëgg a xajamal ndajeeb mouvement yaanaamaar waaye njiitu réew mi Macky Sall mujjee naa gantal ay pexeem jox dëgg waa mouvement yaanaamaar ana kañ la dëgg di jib ci dossier caisse d'avance bu mairie Ndakaaru doon lu yéen a kaabi di l'observateur xëyee maire Dakar Khalifa Sall ak liberté provisoire gañ koy sàkkul doyen des juges ne andu ca nangagul may xalifa Khalifa Sall bàyyib négandiku ñu dem ci yéen a kaabi di les échos mi ñu xëy dégtal ñu dossier Khalifa Sall bi bindoo yéen a kaabi ne lu ñeel instruction bi teel nañ ko boucler lool maanaam gëstu ga ca waroon a am dañ ko faf gaawtu daal di ko tënk ci lu matul weer yéen a kaabi ne moom xalifa Sall ëppalagum na weer ca kaso waaye amagul liberté provisoire amagul bàyyib négandiku juge d'instruction bi moo ca àndul yéen a kaabi dootul yàgg moom Khalifa Sall dina soobu ci procès yéen a kabbidi Sud Quotidien xëy soobu ci feetu indépendance ak kaddu yi njiitu réew mi Macky Sall yëkkati ci veyu 4 avril yéen a kabbine discours am googule njiitu réew mi Macky ma ngay toppandoo Abdoulaye Wade ma jotoon a taxaw chef de village yi ca nguruk soppi gawoon Abdoulaye Wade joxoon leen woto joxoon leen payoor waaye loolee mujjee naa dàkk ci nguruk Macky Sall Sud Quotidien ne cër googule moom la njiitu réew mi Macky Sall bëgg a jëmmal moom la bëgg a toppandoo ci Abdoulaye Wade ngir mun a taxaw chef de village yi ci wàllu payoor Walf Quotidien ne dogal nguur gi ni mel daa am lu ko wundu yéene cabinet njiitu réew mi Macky Sall gannaaw at ci boppu réew mi mu ngi soog xalaat chef de village yi maa leen bëgg a delloo gâteau ba leen Abdoulaye Wade joxoon yéene kaab li ñu fàttali ne Abdoulaye Wade jotoon na jox chef de village yi ay woto joxoon leen payoor waaye loolee bu nguurug Macky yegsee ci boppu réew mi ci la dakk Walf Quotidien tey ma wax leen li sooke njiitu réew mi Macky Sall bëgg a jëmmalaat li ni mel bëgg a chef de village yi gannaaw juróomi at yi weesu yéene cabinet bokk na ci élection législative de village yi ñaareel bokk na ci élection présidentielle yi ñu jëm njiitu mi Macky bëgg na caa dagaan baatu chef de village yi yéen a cabinet lii moo tax njiitu mi Macky Sall bugg a jubanti njuumte ga mu defoon la mu xañoon chef de village yi mu delloowaat leen ko laata élection yéen a cabinet les économes mangoog njiitu mi Macky ma ngay neexal chef de village yi jot na leen a sóoraale ci discours gi weesu ci 4 avril xamal chef de village yi ne dina leen taxawu ko tàyyi ci discours yi ne li askan wi soxla mooy jëf moom Idrissa Seck ne xoolal réew mi doxul ne xoolal paj maa ngi nii feebar lool justice baa ngi nii feebar lool njàng meek njàngale mi feebar lool ak leneen ak leneen ay metti yéene kaa bi di la turbine te moo ne de njiitu réew mi Macky Sall tàllal na loxo ñëpp waaye Idrissa Seck wiccax na ko daal di ko jóori xeer ay kàddoom ci biir yéene kaa bi Idrissa Seck xamal njiitu réew mi Macky Sall ne foo laal ci réew mi féppay metti jafe-jafe yaa ngi ne këtt ne jonn te saafara amagul gannaaw juróomi at ci boppu réew mi nekk ci ay discours yéen a kabi di l'évidence ne bu weesoo Idrissa Seck askan wi gisuñu seen bopp ci discours njiitu réew mi Macky Sall mu ñeel message à la nation yéen a kabi di l'évidence tàngalaat ceeb la la mu waxoon moom la dabbaliwaat ne benn poñ rek moo ca bees ca discours ba muy cër gamu ne dina ko jox chef de village yi maanaam dina leen taxaw yéen a bu weesoo poñ googule askan wi ñu ngi ko doon xaar ngir mu addu ci njëgu luwaas gi addu ci njëgu dund gi addu ci ndaw ñi ak leneen ak leneen yéen a kabi di laas xëy addu ci défilé 4 avril yéen a kabi ne Sénégal wone na boppam moom wone na dooleem ci googule défilé bu ñu sukkandikoo ca la fa armée gi jota wone njiitu réew mi Macky Sall jot na leen kañ jot na leen a bàkk rafetlu taxawaayu tàkk der yi ci réew mi yéene kaa bi di las ne gannaaw fanweeri at ak juróom dëkk bi di ñaagis ak kangit atum ren ji ña ngay dogatal feetu 4 avril yéene kaa bi ne amal nañ fa défilé guy mandar gal ne jàmm dellusiwaat na ca Casamance yéene kaa bi di Le Soleil askan wi jot na ñëw safonteeg armée nationale njiitu réew mi Macky Sall jot na leen a bàkk jot na leen a kañ ne ñu jara taxawu lañu gannaaw saay su ne ña ngay wattu kaaraange askan wi ak seen moomel yéene cabinet lu jëm ci feetu indépendance googule njiitu réew mi Macky ak discours fas yéene na taxawu chef de village yi ci wàllu payoor yéene cabinet Vox Populi ma nga doon défilé ca boulevard général de Gaulle ne foofee arme gi jot na fa wone dooleem ngànnaay yu takku jot nañ ko fa génne yéene cabinet enquête ne défilé 4 avril bangog Sénégal ne ci juróom fukkeelu atu indépendance ak juróom-ñaar Sénégal wone na ci boppam ci boppam njiitu réew mi Macky Sall ay kàddoom ci biir yéene leen bàkk leen sargal leen direct info direct la def démb ba ca boulevard général de Gaulle yéen cabinet jot nañ fa màggal indépendance ci défilé waaye fête gi ni mel nuñ ko baaxewoon di defee daanaka lu bari amatul léegi ci défilé dong lañ ko tënk direct info ne rawante mbaam amatul ci avril rawante gaal amatul ci avril rawante fas amatul ci avril colum cosaan ak yeneen ak yeneen amatul ci avril yéen cabinet stade xëy ñu dégtal Sadio ak gaañu gaañu tombéem déet Vox Sport ne saison gi ni mel Zos dootu ko fàtte ndax Siteu démb dóor na ko mu daanu yéen a kaabi di suñu lamb ne dóor ga na lool gannaaw leewtoo gu tar ca la Siteu xàcc kurpeñ daal di dóor Zos Zos ne ñareet ci suuf yéen a kaabi di suñu lamb ne kurpeñ googule jot na xëm la Zos. jaajëf jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo jàppoon ci xibaar yi bu mu yemb